waxtaan ak ay ay ay am di jàmmam ay supporter am waxtaan ak journaliste yi xanaa ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi bàyyi ma ñëw nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay di nuyu si bi ma seet si tey muy wasaare làmb di wax ala onze bi kalimatillahi taamaati kulli haa min sharri maa xalaqa gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di ñaanal suma ñaari waajur yàlla xare leen aljana ak mboolem jullit mu fa fekk waaw di leen wax yéen a ngi caara mm-hmm. euh, balaa may ñëw sax ci làmb ji démb dama gis open press bi euh, mbooloom yëpp génn. nga fee ci bàyyi ma ñoo ñëw neexal ko waa Caaroy gépp sa digganteeg ñoom lan la. waa Caaroy moom ñun ay xale yu Caaroy lañ man dama naan sax du ma Sénégalais waa Caaroy laa. waaw oh. du ma Sénégalais waa Caaroy laa. <laughs> la boobu. <laughs> non Caaroy bëggu Sénégal ndax Caaroy dafa am benn solidarité bu fi am boo xamante ni dafa yéeme quoi. sans comprendre lépp lu ñu xewle dañuy dañuy teew même bu leen yëgalee bu leen yëgalu dañuy teew sans comprendre hmm. amuñu seen fay waa Caaroy bis bi noonu rek la mënoon demee open press bi xam nga rek bii mooy c'est la première fois bëggoon nañ ko di def mais xam nga daawul antu mais bii xam nga moo tax gars yi génn mobilisé wu di waajal la 19 yàggatul. di waajal le 19 sa digganteeg Fourrière lan moo tax nga dugg ci Fourrière. sama digganteeg Fourrière dama dugg ci Fourrière Fourrière la lañ war a laaj la tax nga dugg ci Baye si Junior. moo laaj nañ ko ko mais moom neena na euh, li ko ko gars yi di topp amu adversaire moo tax ma jël mais sa digganteeg moom làmb sax boolewu leen. waaw moom bu waxee loolu day wax lu ko neex rek na man damaa def samay preuve man tooguma di nelaw man 2015 2000 non 2016 2017 laa dugg ci làmb def samay preuve. moom tamit nee na 2015 la dugg ci làmb. waaw moom man 2016 2017 kon moom moo ma jiitu ci làmb. dama est-ce que kon loolu loolu loolu bokkul ci li tax mu ne làmb boolewule. waaw kon loolu moom la rek ndax man damay bëri di daan de damay bëri di daan kon tey su ma def su ma defuloon dara tey làmb duñ boole waaw. daa am leneen lu muy xalaat nag ba naan lu tax mu jël maak du duteeg yooyu noonu man duteewu ma dara ci combat bi. dama ko war a jël daan ko xooli leneen eh, mais dutoo ma si dara. la moo tax la moo tax respecté wu ko dañoo seetlu saa booy wax wala saa boo jàkkaal ak moom danga koy minimiser lu tax loolu. gis nga nit mbir boo si nekkee da nga ciy dem ak sa sa sa jom ak sa fulla moom mat sëkk ku la déglu xam li ngay wax dafa dëggu ci yow man lépp lu may wax dafa dëggu ci man Fourrière dama ko jox cër dama ko respecté na man nit laa te moom nit la kon dama ko jox cër mais laa moom moo laaj lii sans comprendre dañuy wax pour mën a jaay bés bi. te dañoo fay xaalis c'est comprendre mais nekkul question dama koy manqué de respect yooyu noonu ku ma jox cër la mais tey bu ñu duggee si géew bi dañuy jël cër ak lépp teg na le jëflante ba mu neex. mais sa diggante yow ak moom dañoo seetlu da nga jël pois poids bi est-ce que na la ci làmb ji. man damaa waaru sax ak da ngaa jël poids quoi man jëlu jëluma man damaa wàññeeku. kon du man doo nga ko wax. man man man nitu yaram laa ñun suñu famille ñun ay nitu yaram la man damaa wàññeeku bu baax baax suñu kër boo fa duggoon maa fa gën a ndaw muy góor ak jigéen. il comprendre ñun ay nitu yaram lañ ndax daaw maa ngi doon posé ay ay cent quinze kilos ren maa ngi def cent neuf kilos kon wàññeeku naa bu baax xëy na moom moo moo jëloon poids am nu am xaw ma nu mu use noonu mu am poids léegi affaire yi commencé kaa indil ay gàll. yi métti moo tax mu am poids. gis nga amul nit kuy entraînement entraînement yi métti di am yaram lu leer laa la. amul kuy. entraînement entraînement yi métti di am yaram. sooy entraînement entraînement yu métti da nga war a jeex. da ngay feere da ngay jeex. te su ma simee ko su su dawee ma daw dinañ xam ne lii yaram la. mais moom moo la gën a jeex fi mu toll nii de. waaw moom xaw ma daa feebar xaw ma lu ko dal noonu mais moom la rek sama yoon nekku si. kan moo feebar. moom xaw ma daa jeex xaw ma daa am yaram man man loolu concerné wu ma man li may liggéey man moo ma man li may liggéey kese moo ma concerné mais fourrière lu ko dal ak daa am yaram ak daa wàññeeku man sama concerné pas. mais dafa mën a bëre seetlu nga seetaan nga combat am. man mënumaa bëre xanaa. non moom laa wax moom mooy sa adversaire est que seetaan nga ko bañ a seetaan seetaan naa Fourrière champion la ndaanaan la. lan la ma ne. mais billaahi wallaahi laa la waatal maa ko dàq bëre fuuf waaw maa ko dàq. bañ a wax loolu. waaw baax na la 19 yàggatul yàlla ñu si yàlla yóbbu ak jàmm rek. keroog keroog journée bi moom bébé Diène dafa bëre stade bi yëpp jóg. waaw xam nga da nga ne journée moo bébé Diène kii bàyyi ma njoon si ñoom xeex xeex bu metti boo xamante ni nii. waaw loolu nga nàmm say loxo de. loolu man sama combat rawaan nu mu demee ñoom ne rawaan moo daax xeex bàyyi ma ñoon siñor dama ko dóor moom wane ginnaaw wane plaque numéro non mais man man man fourrière laa la wax goneb Grand Yoff laa la wax ma rawaan non da nga ne fourrière ne bébé Diène dama lay indi tamit samay argument yoo xamante ne ñoom bëreel waaw ñi ma nga taxaw xeex ak fourrière fourrière la ñuy laaj nag ñu mën a taxaw xeex ak ma ñoon siñor bu ko xam-xam ne der man ndax man combat mujj bi moom dama koo dama koo nangul mais dama est-ce que ñi ma ngaa taxaw xeex ak fourrière la lu mu indi fekk ko fi maa nga daax xeex fop ñun mbërëm caare da ngay gis du dem fenn jàngi xeex. dama ne est-ce que ñeme ngaa xeex ak moom. waaye bu bu xeexee ma duma ko. bu xeexee ma duma ko. jàngal ko ni ñuy xeexee te combat bi sax day am xeex incha allah. day jaay xeex par force. yàggatul le 19 yàggatul li ma li ma nar si le 19 bëggatuma kaa wax ndax yàggatul. mais faaw nga waxoon ndax ñi nga xamante ne nii euh, nar woon ñëw sax danañ mën a ñëw fekkee bés bi. waaw ñëppay ñëw incha allah. te te li ba ci gën a neex mooy da ngeen di ci ay bésum ndaanaan ndax ku mel ni Gaga 2 euh, Maama Lamine Franc Tyson 2 ngeen woo cee ba woo cee wane seen bopp loolu faaw nga wax lan ca nar. pour man combat yooyu yëpp amul pour man sama diggante Fourrière kese moo am barki alxuraan te damaa fas yéene jëflante moom ba mu neex Fourrière dañuy bëree pare ñu doon ay gaañan ma ak moom. billaahi wallaahi maa la wax lii tey bindal. Hmm. mais nga nekk rek mbër. Euh, nga gis euh, làmb ni mu méttee. ngay waaj komba keroog démb bi bàyyi ma ñoo ñëwee dafa tuus neexal ñëpp seen xol sedd bi mu tuusee lan nga yëg. waaw njoon kooku kooku du sama mag sama papa la ndax man li lépp loo xamante papa mu ngi koy defal doom sama mag boobu moom ma koy defal man nam mu ma dara tey bu jotee avance am damay oo ba ma ñëw nee ma loo bëgg jox ma li li may may ci xaalis sax duñ ma ko fay ci làmb kon kooku desalatuma dara xanaa am doom ju góor rek tuddee ko ko loolu rek laa ko desal. Euh, damay dégg say kàddu nga naan lenn rek la mu ëppalee muy ñaaw. dafa. daa ñaaw de. <laughs> mais yow yaa dàq fuy yow maanaam daa. waaye man mooy jantal booy. waaye jantal booy yow fan daa ñaaw frère frère del sangu. maanaam. <laughs> non mais day ñaangal daa bëgg nga yor ko mais ñaawul de. waaye a ñaaw ba waaye frère kay geen mais li yàlla xam dara yaa ma gën a xam. <laughs> mais bu bu bu bu weesoo loolu euh, naka ngay waajee di mobiliser ak say supporters ndax làmb ku ne xam na ni fi làmb toll mobilisation di ci am solo fan nga toll ci wàllu woowu. déggoo ñun caaree la ñun dëkku làmb la yaa ngi gis xale ndaw yi am nga tey kenn da nga ñëw rek fekk leen fi. Mhm. ñoom ñii la ñun nii leen daan def ñun dañoo rek xam nga nekk ci tefes gi di bëre ba ñëpp xam ñu kon tey suñuy bëre rek yoon la waa caaree dem supporter ñu te mosuñoo dem stade gëstu gisuñu kenn saa bu ñu bëree dañuy. yóbbu eh, ay nit ba mu ba mu bëri te saa bu demee stade dañuy am lu kawe suñ jor ndax ay wàllum maanaam ay nit ñoo foog ni sax xamuñu la xam nga da ngay ñëw gis people boo xam ne daf lay jaaxal moo tax ñu bëri suñu bakkeen la ñuy teg. Mhm. mais ci wàllum entraînement yi parce que dañoo gis ne léegi Thiaroye moom daanaka léegi benn la wàllum entraînement préparation bi fan ngeen ci toll. ñoo ngi si bu baax ñun avant ñoom combat ba leen ñoo ngi liggéey kon tey bu ñu amee combat dañuy mottali rek ndax ñu si ginnaaw ku si mel ni Xaadim eh, mu mag. ak Xaadim Ndiaye numéro 2 ak Baye Mandione ak Issa Pouy ak Ahmed Dem ñoom Reug Reug ñu seen ginnaaw ñu ngi siy tàggat bu baax ak suñu coach bi nga xamante ni mooy parobel sama papa moom la ma dénk ak suñu coach de physique Iba Iba Cissé ak suma gars yi nga xamante ni ñoom laa toogal ku si mel ni Mam Mor ñu naan ko Saa Kajoor am na combat Kaolack di ko ñaanal yàlla may kon ndam ak suma jarbaat ak sama gars yi nga xam ne Gambie la jógee combat beeg kon bakkan rek laa war a mën a teg pour bégal leen daal. Mm-hmm. Euh, soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñu wax ñu bàyyi père mu ci quelques kàddu après ñu ñëw nga tàggatoo ñu tëj ba beneen ndax dañoo war dem seeti fu ci open press am tey. Euh, père nuyu naa la. waaw ah, naa leen fay naa euh, ñu ngi nuyu waa Thiaroye di leen nuyu di di di xamal ne waa Thiaroye ne ñëpp mobilisé wu comme ni nga ko waxee ndax làmb mobilisation moo ko yor. Euh, ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax a baax a baax a baax di kontaan si yéen nag ndax open open presse bi ñu teew bi ngeen teew noonu rafetlu leen ko ñu wóor na ne yéen a ngi jàppale askanu làmb yéen a ngi yóbbu làmb ci kanam ndax kontaan nañ ci bu baax ndax moom bii mooy première open presse am kon ñoom euh, te gis nga ni mu demee li mu wax nii moo si nekk dafa gone ay preuve am egg fi mu egg furier nag na xam ne am na làmb waaw na jàpp ne am na làmb waaw bëre bi muy wootee combat yi mu wootee noonu di bëre noonu yëpp ñu ngi koy déglu di wax waaye ñu ñu ngi liggéey rek ba bés ba. mais père est-ce que est-ce que est-ce que bu Fourrière andi woon bu andee la mu andi woon keroog naka nga na gisee ak sa poulain. waaw xam nga ñun dëkku làmb la ñu nekk ñun xeexu làmb la ñu jàng ñun jànguñu boxe ñun dañ leen jàngal xeexu làmb xam nga xeexu làmb boo jàngee xeexu boxe sa combat day yàgg ci xeex mais xeexu làmb toujours moo gën a gaaw. ah alhamdulilah rabbil alamin loolu de ma ne mu ce mën na xeex. combat mi yëpp da koy day xeex. combat mi yëpp avant muy jàpp nit ki daan day xeex ak moom waaw combat yi ñu ko yóbbu yëpp dafa xeex ba pare ba am buntu doog a dem waaw. mais poids bi mu yor ak boo gisee kii di fa euh, poids yi xaw na méngoo tuuti euh, est-ce que bu combat bi yàggee est que du ko xaw a sonal tuuti. waaw ndax loolu euh, yaa ngi koy posé di ko posé ndax moom day bëre. dix combats doog a doog arrêté parce que ñun dañoo yor chronomètre dañuy chronomètre ay entraîneur lañu waaw day bëri dix minutes da nga maam ba pare da maam ñu ñoo ñu ñoo koy fekk sax mu jàpp nit ki ñu tapp ko ne ko arrêté nga soufflé waaw kooku nag ko kooku am poids mënu ko. kon kon loolu daal tiitu leen ci benn yoon. tiitu ñu côté boobu vraiment waaw parce que day bëri dix minutes ñu doog ko arrêté ba te bu arrêté da nga maam day dox ñëwaat day day day forcer sax pour bëgg a contact. ñun ñoo ko naan non mbir mi du noonu waaw. mais ak ak dinaa dinaa ko ci dugal tuuti euh, équipe bi benn la woon léegi ñu gis waa Thiaroye lépp booloo nañ entraînement yi ak xale yi ngeen dajale est-ce que déggoo bi dina ci am bi ci war. waaw ndax euh, Thiaroye yëpp benn bopp la loolu lu yàgg la waaw euh, léegi nag ni ñu booloo nii loolu la gën a jàppale ndax fi ni nii ci biir ci biir préparation bi da ngay da ngay da ngay jël luur te fekk yow léger nga. dégg ma mu yokkula doole loolu mooy avantage bi waaw fi ni nii kii ñu muy kontaagal ñu ëpp doole fourrière waaw te fourrière xamul loolu waaw moom pour moom ay moromam moom moom kontaagul ak ay moromam de moom am na mobile moo tax moo tax nag mu combat bi war a neex nag comme looloo neexal combat bi loolu tax combat bi am punch waaw parce que kenn ku nekk da ngay wane eh, sama équipe am na lii am na lii moo tax nag eh, combat bu neex la nag. combat bu neex la waaw te ñaar ñaari ndaanaan lañ bëre waaw mais nag Fourrière tam sama doom la kii tam sama doom la comme li ma la ko waxoon keroog mais nag damay ñaan sama doom ji nag am ndam bu sedd guy waaw bu ànd ak glace boo xamante ne zéro faute waaw day bëre ba pare comme li mu ko waxee nii ba pare ñu nekk ay gaayen waaw loolu moom day am waaw. kàddu yu rafet na euh, moo yor mbërëm waaye ñaanal na ko jàmm waaye tamit ñaanal na mbërëm ndam. Euh, soo amoon kàddu yu mujj nga woote ñu tàggatoo ba beneen. <coughs> waa xanaa di woo ñu xamante ni ñoo may jàppale rek autorité caara yi ndax ñun caara yi dañuy demee suñ suñ fëggu rek ak booy yi nga xam dañuy wër duñu ketal ñun caara amuñu koo xam ne daf ñuy jàppale ay billets ak ay car loolu amu fi musuma bëri am ku ma jàppale ay car booy ñooy dem di dem si marché dama leen yërëm sax. billaahi wallaahi billaahi suñu mooy mbër mu ndaw moo metti metti na trop mais loolu amul Pikine jàppale mais lay bolok seen seen autorité yi mais caaray mais da ngay wax ak da ngay wax ak autorité yi tamit. waaye damaa wax ba sonn billaahi wallaahi nañ ñu jàppale ñun caaray lañ am tey suñu ngemb yooyu ñuy ngemb bu ñu xool ni ngemb kese la couleur la te couleur caaray la tey bu ñu amee ndam caaray lañ koy indi. li ma koy waxee chaque jour rek euh, làmb dafa mel ni nawetaan ndax nawetaan koñ boo dem bu nee am na équipe làmb tamit koñ boo dem bu nekk am na mbër kon mbër ma fa nekk ña nga xamante ñoo fa nekk di bon volonté yi ñoo ci war mën a teg loxo jàpp ci bu baax a baax kii xale la di défendre couleur gox bi yéen waa ca génn leen ngeen jàppale ko ku ci nekk fukki dërëm wala cent franc bi moom mu ko ko xeebal ti leen ngeen jox ko ko jàppale ko ndax ëllëg tamit am na nu muy demee caaro la ñuy wax du ñu wax Baye Mandione Junior. waaw comme li nga waxee rek wax nga lépp daanaka nañ ñu jàppale ñun caaree lañ am waaw di wax tamit comme seen drapeau bi nga xam moom la ñu bëri nañ drapeau média la ñu bëri nee naa làmb ji ñu. dégg nga ñu sànni xeer ne ay wax kat ngay bëri. <laughs> ay waxkat ngeen kay. waaw ndax ñun ñoo gën a métti drapeau ñu fay bëre ñëpp ndax tey ñun daal ndam rek mu ñu jik si drapeau bii nii. ngeen fexe nag ba nii ñu waxee ngeen reyante noonu waxuma nag ngeen ñëw taxaw foofu di léwtoo kii jëm gauche kii jëm droite taxaw di ñu fa nit ñuy waxee ni di yuuxu ngeen ñëw defee ko noonu làmb ji jeex. man sama carrière yëpp ku seetaan samay combat am naa huit combat mais ku xool samay combat yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bi si gën a gudd matul cinq minutes. waaw kon man new ma fay di leen jéem a taareel wala ma leen di guddal. Ah, nga waaj de. en bis bi daal dina neex dina neex trop di féliciter waa Equivox Arena bu baax a baax a baax di wax ne tamit li ñu def yombul ndax Siteu bëri nañ fi mais tey bu ñu jëlee seen xaaj def ko ci làmb dañ leen sant bu baax mënoon nañ ko yóbbu si football ak woon ak leneen ak leneen kon ñii ñoo ngi jàppale jeunesse su Sénégal daal di woo waa Thiaré bu baax di ñaanal Badou Fall numéro 2 combat jëm nii yàlla may ko si ndam ak Coly Faye ak Issa Pouye Baye Mandione nag mu ngi ñu nag waa Grand Yoff instant bi dër bi dafa métti ndax Baye Mandione dafa war a bëri ak Zarko te Zarko Grand Yoff waaw te man maa war a tijji bi leeral bagage nekkul fourrière moo may téye fourrière maa la mën maa la ëpp doole su ma la jàppee làmb ji jeex. gis ngeen maa la mën maa la ëpp doole bu ma la jàppee làmb ji jeex ñu bàyyi ba yegg ca xam naa ne noonu lañ koy defee di leen dig daje ba beneen yoon Adama maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di la jaajëfal bu baax kontaan ci yow jërë ngeen jëf